sëñ bi ñaanal nañu ko. sëñ bi ñaanal nañu ko. te boroom nangul na ko. kon nag kon nag. li war li war. nan sax ci wéetal yàlla nan sax ci wéetal yàlla. sax ci jaamu yàlla sax ci jaamu yàlla. sax ci sant yàlla. sax ci sant yàlla. sax dàkk ci loolu. sax dàkk ci loolu. li ci des nag.